tey jii euh, li waral ñu ñëwaat fii ngir bëgg waxtaan ak yéen c'est simplement pour euh, indi benn leeral ci benn mbir mi nga xamante ni mu ngi xew ci ay bés yi di ñëw mu nekk benn sitting bi nga xamante ni ay nit yi nga xamante ni suñu amical nañu nekkoon jóge fii daal di former seen kuréel tuddee ko euh, les récents di concours ci jamonoy Matar Cissé Senelec daf fi amaloon ñaari concours benn concours bi c'était pour le euh, euh, protocole d'accord nous avons signé avec l'Union des travailleurs de l'électricité pour départager partager, nous avons organisé organiser concours Mais le mais protocole d'accord nous avons signé pour départager avons fait un concours nous avons am moyen de au fur et à mesure ñu dem ba ñoo ñu Nous avons ñu ba organisé un concours le concours de la dernière chance concours boobu

mais mbir mi doxewul mbir mi doxewul concours lañ organisé ñi am ñi admis jël lañ leen ñi amul top nañ ñi amul ne dañ leen jël force fofu la mbir mi pour rek di wax ne ñun xam nañ du baax parce que Senelec ñun ba commencé suñu amical ba légui ngi man population bi ne 187 éléments mais derrière, il y a 493 éléments qui sont déjà dans le système de l'IGEI. Si vous voulez, c'est le fait que nous sommes en fonction de l'IGEI. Pour une des nous avons invité les Indiens pour gagner les gens qui ont ne MIRMI train de se Nous, nous sommes amicales du travail de l'électricité. Nous sommes amicales, nous pour le couvrir. mais bi ñu demee ba ci biir wax na leen ko nee naa leen gis-gis yi moo bokkul moo waral ñoom ñu génn dem seen yoon. directeur général embauchement mënul am dëgg mu ngi soog a toog foog ñu may ko temps mu jéem a xool Senelec parce que bi ngeen seetee ci jamono yi la passé amoon ay coow lu bëri yu génn mais bi ñu demee ba ci biir mu ngi lijjanti problème bi nank-nank te xam nañu ne ci at bi ñu nekk nii ci mille 2020 bi directeur général su paree li muy def.

wax ko sa soxla ci prestataires yi incha allah dina la defara li nga bëgg.